candidat bi di Bassirou Diomaye fay àndul benn yoon ak boor entreprise de presse yi ñuy faase at wu nekk ndax nag jàpp na ne loolee dafay gën di yokk rek li ñu dippee fraude fiscale la. que ni ñuy dimbalee presse bi bu dee loolu lañ jàpp ci dimbale presse bi loolu du dimbale presse te dañ ko commencé tamal press bi et c'est pas c'est une fausse solution à un vrai problème et les patrons de presse de façon générale waruñu opter pour la facilité. parce que une infraction reste une infraction une fois wat baal la deux fois wat baal la mais Macky ñëw baalaat la on ne peut pas continuer tout le temps di éponger la dette fiscale de la presse parce que c'est un encouragement de la fraude fiscale et la fraude fiscale c'est une infraction qui est réprimée dans tous les pays sérieux moo tax mu ne bu ñu ko falee njiitu réew Sénégal dina andi ay yeneeni ka solution yoo xam ne dafay dëppoo ak yoon waaye itam dina doon ay solution yoo xam ne dina laal secteur bi yépp problème yi patron de presse yi am du problème yi reporter yi am boo dim boo réglé problème bi d'un côté réglé ko de l'autre côté mais t'as pris à bras de corps le problème de la presse dañ koy jël dans sa globalité approche holistique la ci war a voilà la question c'est une entreprise dans cette entreprise voilà le chef d'entreprise lii mooy problème am investissement am renouvellement matériel am parce que c'est un milieu dans lequel la technologie avance à une vitesse extraordinaire tout ça ñu yore nii mais d'ici cinq dix ans ce sera miniaturisé mu gën a yombal seen liggéey mais day gën a cher aussi. Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne bokk na si ñi jongante présidentielle ba daal nay naqarlu itam méttet yi ñuy faral di tekk taskatu xibaar yi ci seen wàllu liggéey. agression yi man euh, la doctrine de de de de maintien de l'ordre au Sénégal moom nañ dafa war a changer tant côté des des des des manifestants que du côté de l'ordre man je toujours écœuré de voir. ay sénégalais jamarloo saa ñu defee tuuree deret rek même bu dee da nga xosi nit instant bi nga koy xosi xas yaa ngi xosi journaliste parce que lu mu wax neexul parce que lu mu ko waxee neexul mais en définitive bu ñu ngeen paree yow sénégalais nga xosi. candidat bi nag nee na am na ab programme woo xam ne taskatu xibaar yi la ko jagleel mu di ab programme de spécialisation. daal nay rafet lu sax liggéey gu am solo bi nga xam ne taskatu xibaar yi ko topp ci campagne bi ñu ngi koy def ngir jottali ay message am. askan wi. Euh, bu dul woon yéen li ñu bëgg def duñ ko mën a matal.